Trois espoirs. mbokk yi ñoo ngi ci tiro bi waa Géejawaay ñoo dóor Ama Dia jàpp na bal ba promoteur ak waa Géejawaay waay Dia jàpp na promoteur ak waa Géejawaay <laughs> eh promoteur yi dugal nañ benn waa Géejawaay rete nañ benn. père damay filmé mën naa dem ñu presse la non dugguma fële dafa jàll xoolal ñun presse la waa dañ ko dugal

ñoo ngi ci série penalty ba ñoo ngi ci série penalty ba kan ma dóor Baye Mandiaye Baye Mandiaye damay dóor deuxième tiru Guédiawaye Baye Mandiaye ma dóor noonu Guédiawaye ak promoteur góolu oh Bamé Ndiaye dugal na Guédiawaye raté na benn dugal benn promoteur yu mbokk yi dugal dóor nañ ñaar dugal ñaar kan dóor jéey ngi wax ak moom de Cheikh Niala ak Dieye <laughs> kan moo ci dóor ñoom ñaar daa mel ni Cheikh Niala mooy dóor de promoteur yi ñooy dóor noonu Dieye yab na ko abi bi nee na Dieye boo dóor Cheikh Niang mooy troisième tir pour les promoteurs oh Cheikh Niang dugal na troisième tir ba Cheikh Niang dugal na troisième tir ba Ibrahima ngay <laughs> bokk ay bilaay tegu promoteur géej géej waay. Eh, lii xëy neex na mais enfin gars yi nee nañu promoteur dañoo chantage booy de. Ah. dañ na booy ku dugal duñ la tëgg. <laughs> mais affaire ah, loola gars yoo xam lii xëy neexagum na de. Ah. lii xëy neexagum na de. écoute mais malheureusement la fête elle est gâtée on n'a pas respecté les temps réglementaires. les les les temps. ah non mais c'est vrai. 30 30 ans. mooy doo troisième tir pour les promoteurs. oh Cheikh Niang dugal na troisième tir ba Cheikh Niang dugal na troisième tir ba Ibrahima ngay bokk mais lii xëy neexagum na de ah <laughs> Ibrahima eh, lii xëy neex na mais au fait gars yi ne promoteur dañoo chantage booy de. dañ ne booy ku dugal duñ la tëdd. mais père loola gaa yoo. père liy xeeñ neexagum na de. liy xeeñ neexagum na de. écoute mais malheureusement la fête elle est gâtée on n'a pas respecté a temps réglementaires. les les les temps. ah non mais c'est. 30 30 non non j'ai oublié ko. malheureusement c'est ça. bon mais ça va. promoteur ñoom ñan la. waaw ñoo mbëru géej waay. ñoo mbëru géej waay. santage bi nag gars yi nee nañ dëgg la Samba Laobé dugal na géej ñoo mën a waaw waaw. 3 2 3 2. 3 2 3 2. 3 2 waaw 3 2 pour gan pour promoteur. promoteur yi ñoo dugal club bi géej waaye dóor na ñaar dugal raté benn. mais waxaale ko ni coach yi nii dañu saboté suñu temps bi ah. ah coach yi ñu temps normal. non non dama bëgg ñu assurer sécurité laa bëgg jouer. non mais mais mais mais mais mais waa Guédiawaye. Uh-huh. waa seen waa Guédiawaye ñooy entraîné moo tax. da leen koy nangu waaw waaw waa Guédiawaye ñooy entraîné da leen koy nangu. waaw li Pape Abdou Fall lay wax. Pape Abdou Fall mooy wax Pape Abdou Fall nee na mooy wax. Pape Abdou Fall Khalifa Dia. ah Khalifa gi am Khalifa Dia Pape Abdou Fall la nu mu demee. mon cher Khalifa namm naa la. promoteur yi ñoo doon ak seen quatrième tir. rek participer ci tournoi promoteur yi ak waa Guédiawaye quoi. waaw tournoi mais en tout cas on vous félicite beaucoup. alors tour bi. voilà oh promoteur dugal leen seen quatrième tir bu géej waay raté match bi day jeex. bu bu géej waay raté match bi day jeex. parce que dañuy raté ñaar fi mu toll nii euh, dóor Mbaye Diallo ay Papa Boy Djiné ñoo fi nekk ay euh, Maguette Seck Boy Niang numéro 2 Thiatou Daouda Fall mbëru Guédiawaye ndigal ak ñoom ñëpp a ngi fi daal. Sa Thiès mais footballul footballul. léegi répondé ma xam mu dégluwaale mu dégluwaale après ah, dégluwaale dernier kii bi. Papa Boy Djiné mooy dóor Papa Boy Djiné mooy dóor quatrième tour Guédiawaye Habib ba sifflé na. Papa Boy Djiné ngay daw du ko dugal lu mu koy def raté na ko ah promoteur yi gagné nañu Papa Boy Djiné raté na promoteur yi gagné nañu <laughs> promoteur yi gagné de. mais promoteur yi de. président wax ah de. Eh,

Papa Boy Djiné raté na promoteur yi gagné nañu promoteur yi gagné nañu de mais promoteur yi gagné nañu de président wax ah président wax tey mais promoteur yi gagné nañu de mais mais mais mais président wax tey mais kontaan naa mais kontaan naa Fall méttee. Fall méttee da ngeen tenir booy yi. non mais dañ ko gérer. ah mais loolu la. Fall lan moo tax ngeen ne booy bu dugal moo leen dëgg. non waxuñu loolu loolu waxu yàq la rek. waxu yàq la rek. mais Dieye. Dieye Dieye. 3S